beneen demi-finale bi Mbine Coly bu Diofior à gauche Mame Fadé bu Diofior à droite Derbila Daaru ak Nduuk Daaru à gauche Nduuk à droite fii ci Sumbel lay xew à quelques kilomètres de Diofior waaye nag li wanoon nañ ko waxtaade oho oh, mbagg ba dañ na ñëwaat nañ jox nañ Mbine Coly avertissement moo génn ma fade mbin koli alo la ilaha illallah ma fade mbot na ko ma fade daan na ko